le président Bassirou Diomaye Faye s'est engagé à faire après sa prestation de serment Rama Boy kon président wax na. discours bu responsable bu génn ci làmmiñu ko responsable tàbbi ci nopp ñu responsable Ibrahima discours bi dal na xel tey nag euh, discours bi euh, daal euh, mën nañ ci am yaakaar gu bëri bëri bëri. dafay dem nuyu maanaam les premières dames Rama loolu la ñuy wax. yow mi am na solo. sàkku ay ay ay ñaareel saa su ne <laughs> yàkkam ci mayee jabar mbir baa dafa xew. ñaareel si boppam moo xew. finalement loolu la xale yi wax. en tout daal yéex na Ibrahima. donc ay soxnaam ñëw ko ndokkeel. dañu si lu ëpp solo loolu Rama mooy événement bi président. de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye mooy dalal ay ganu Sénégal ñoom ñooy ñëw benn kenn kenn ñëw nuyu ko voilà président Mauritanie di président Union africaine Mohamed Ould El Ghazouani moom mooy euh, njëkk nuyu ki nga xamante ne moo di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ngi fàttali aussi jiitu réew ngi fàttali aussi ni na nàmmee liggéey mhm. pour que Afrique nekk continent mhm. une Afrique de progrès comme il l'a dit nekk continent boo xam ne day gën a jëm kanam gën mhm. président Ghana Nana Akufo-Addo moom mooy euh, ñëw nuyu le plus jeune président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye gis nga nag ree bi ak xool bi da ngay xam ni moom comme on dit en français il est droit dans ses bottes ku dëggu la maanaam dal bi seetlu nañ ko si moom tey bi seetlu nañ ko si moom dal na tey na yar bi seetlu nañ ko si moom mën nañu jàpp ni royukaay la si ndawum Sénégal maanaam tey jii mooy représenté ndaw yi nga xamante ne ñi ngi juddu après les indépendances et après et après maanaam 1980